Ousmane Sonko euh, lu ni mel nag ba mu waddee ba noppi Mame Mbaye Niang daal dina janoo ak taskatu xabaar yi moom nag ànd na ci boobu dogal nga xam ne moom moo tukkee ca yoon yaatali ak Mariam Soda Ndiaye Pour la décision de la cour d'appel qui condamne Ousmane Sonko à six mois avec sursis avec une amende de 200 millions suite à l'appel interjeté par les deux parties Hambourg comme certaines localités. jégalu bu baax mu mel ni boobu élément yembul daan ci dikkaat ci yeneen jotaayu xibaar wax itam ci àtte boobu nga xam ne ba mu wàccee ba noppi ñu mel bari nag daal dinañ cey rek fësal uh, seenu mer ni ànduñu ci bokk na ci fu ci mel ca diwaanu Ziguinchor ndaw ya uh, génn di taal ay puno la ñu def ngir wan ni ànduñu ci boobu dogal uh, tukkee ci yoon waaye itam fii ci diwaanu Ndakaaru ca Pikine ba ci sax université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru itam ndaw yi daal dinañuy génn wàcc ngir ci mbedd yi ngir fësal li nga xam ne moo leen naqari ca diwaanu Mbour itam nemmeeku nañu ko fa Mansour ba taal fa ñaari bus yu dem dikk te duma ci muusa ànd ku nekk mën nga def manifestation mais bus yi bu ñu ko taalee ñi tax ñu koy taal duñu ci dugg seeni doom dugg ngu ñu ci bus yi bien wu Sénégal la ay sénégalais ñoo koy jël kenn amul droit yàq li nga bokk ak ñëpp ci reewande la bokk bus yi Macky Sall moomu ko waa pouvoir bi moomuñu ko man moom ma ko parce que am na oto keneen moomu ko parce que am na oto Birahim moomu ko am na oto mais ñi koy jël amuñu oto te dañu am droit pour tukki gis nga bu ñu amee ay entreprise privée yu yëngu ci wàllu transport ñuy def ñuy def concurrence ci wàllu proposer nit ñi ay bus yu luxe Dakar dem dikk ci jamono maître Moussa Diop ñëw initier loolu yi fiy dox am beneen directeur bu remplacer maître Moussa Diop yi fi sëngee maat beneen directeur bu bees ñëwaat ñu encouragé ko mu relancer waat secteur dem dikk waaye boo yàqee biisu Dakar dem dikk mais alalu kan nga yàq alal bi Sénégal ñëpp bokk nga yàq loolu kenn amul sañ-sañ bi ci réewande la bokk man loolu laa nangu que ñi koy def bu ñu leen jàppee dañ leen a war a sanctionner bu baax li may dénoncer mooy xale buy manifester ci mbedd nii nga jàpp ko jàppaale ko kiiwul lu ñooñu ay détenus politique lañu innocent yi dañ leen leen bàyyi parce que xale ak manifestation ñu ànd mais taal oto. mais loolu yàq bu jéggi dayo la dafa jéggi dayoo te kenn du ko cautionné te kenn mënoo fexe ba ñu tàccu la ci bisu Dakar Dem Dikk Macky Sall da ko moom waa benn bokk yaakaar dañu ko moom waa Pastef dañu ko moom amul kenn ku ko moom xaalisu contribuable bi la mu ngi mel ni benn député fayee ko ràmb la nga këf xaalisam taal ko ci mbedd noonu la mel xaalis bi ñuy fayee député bi xaalis boobu la ñuy jëndee bus bi te ñiy jël bus bi mooy ñi seen ñi nga xam ne seen am-am dafa yemamaay wala ñu préférer tukki benn tukki bu luxe parce que offrir nañu leen benn condition de voyage bu xaw a am solo yàq alal bi ñëpp bokk rewande la. Birahim ci ci Dakar dem dikk boobu ñu génnee ab communiqué ngir wax ni tey ci euh, talaata ji euh, juróom euh, ñeenti fan ci weeru may du ñu fas yéene daw mu nekk loo xam ne dogal boo xam ne jël nañ ko gannaaw bus yooyu nga xam taal nañu ko dem ci Mbour. mais ñoo yaay. Ah, ñoo yaay bu dee da ngay ma ne su ma ubbee sama commerce. manifestation wala lu nuroo manifestation bu amee yaax sama commence waaw hmm. ah, du ma ko ubbi nag. day ñëw tukki tey gis nga kii taal bus yooyu ñi ko taal leer na ma ni dañuy jël bus yooyu dañ koy jël. léegi tey nag ñu ne léegi nag far bus amul nga ñëw Ndiaga Ndiaye bi ne la yokk naa sama paas après nga naan non Ndiaga Ndiaye duñ yokk seen paas parce que yow yaa taal bus ba. ba ba ki ña ña ñooy gérer bus bi. muy transport en commun ñëpp ko bokk ne ni man dama génnewul bus donc kan ngay sonal ñi nga xamee ne dañ comme li Mansour di wax peut-être que cent cinquante la ñu am na tey ñoo xamee ne bus yooyu moo doon yóbbu ñu a jël terre bi par exemple fii ci Dakar c'est ça ñu ñu am euh, difficulté na su ñu am oto Mansour yaa ngi naan am naa oto am nga am na ñu am oto ñoo xamee ni comme dans tous les pays dañuy teg seen oto pour dugg bus parce que toll nañ jamono joo xamee ni peut-être am ñu jóge essence c'est pas parce que am ngaa oto que am naa essence de wala mu am njëgu essence peut-être que dañ maa may oto sax est-ce que am naa essence bus bi laa la jël. c'est ça mooy gën a yomb. wala su ma yoree sama oto mënu maa gaare ville. wala ma sonn am na fu ma mënul a wala am naa difficulté sama oto ma jël bus. loolu ci ñi am oto mais am na ñoo xam ne tey du ñu du jeex ñu amul njëgu oto. Euh, bëgguñu duggu car rapide wala ñu dugg Ndiaga Ndiaye amuñu njëgu taxi ñu ne ci bisu laay dugg peut-être naa toog am jël sama yoon dem fa ma war a dem. gis na taal muy bus. muy ba ci Auchan je ne fais pas publicité. kay liggéey Auchan gisoo ci benn tubaab bu nekk biir Auchan. kay fayeeku Auchan exclusive supermarché grande surface yi fi ne. ñoom ñëpp ce sont des sénégalais. xam nga kan mooy jaay Auchan. Auchan xam nga fu muy jënde wala exclusive xam nga fu muy jëndee dugg naa ci sama benn mbokk boo xam ne dafa yore ay toolam di def transformation mango di ko def ci confiture powu confiture. madd di ko def pot confiture du la ko jaay yow parce que amoon njëgam pour mu jaay la ko en groupe mën na la jaay benn benn mais da koy jël exclusive supermarché ne ko kaay ma ma jënd ko ci yow keneen ne ko euh, Auchan ne ko kaay ma jënd ko ci moom muy gañe dara di ko mën a séddale ay mbokkam mhm. am na kuy jaay salaat kuy bay salaat salade fële ca euh, Malikunda mhm. mënu ko jaay ñu nekk Malikunda parce que peut-être dañ naan mënuñu ko jënd mhm. yow peut mën ngaa soxla tey suba keneen du soxla benn entreprise ne ko léegi xam nu ñuy def boo bayee hectare u salaat ma jënd hectare u salaat mais yow kooku jàppale nga ko lu tax nga bëgg a taal Auchan boobu wala nga taal exclusive boobu wala nga taal bus bi wala nga taal kër presse parce que dañu ne ni non dañ cee tudd euh, diw te nañ ko tuddee neexu ko nga dem song ji ko au nom de quoi équilibre de euh, xaw ma nu ñu koy te bëgg fi indi terreur mm-hmm. terreur nag ku ko indi am équilibre de la terreur mm-hmm. man boo ma xuppee am naa possibilité xupp la yow ci xupp boo xamee ne mm-hmm. euh, li metti ci yow lay jógee mais pas ci man mm-hmm. euh, tàmm nañ ko di ko gis saa su ne bu procès amee euh, Ousmane Sonko war a wuy di yàq gi après ci ci ndaw yi Auchan ak Dakar dem dikk taal gi aussi je pense que loolu lekk na loo xamante ne ñëpp ñoo koy naqarlu ah nekkul loo xamante ne exemple lañ ko war a jox ci ndaw yi rawat na nag ñoom je pense que loolu war na mën a tax encore une fois on, a, on, on en appelle justement à la, à jeunesse sénégalaise, à, la, vraiment mhm. ñu revenir à la raison, à la responsabilité ñu bàyyi seen xel que ñoom comme ni ñu ko Mansour waxee Biraye mhm. li ñu yàq euh, yàquñu ko parce que état bi moo ko moom wala yàquñu ko parce que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey Dakar dem nit ñoo ko moom mais mhm. dañ koy yàq parce que ñu ngi yàqal seen bopp dañ ñoo ngi yàq seen bopp xam nga xam nga loolu moo gën a métti ngay yàq loo xamante yow sa bopp yow sa bopp parce que li li li tax ma ne ñoom yàq seen bopp mooy li nga xamante moom la ñuy yàq benn seen moomeel la parce que seen mm. alal la jar parce que mm. ñi ko jënd tamit jëndewuñu ko seen alal mais suñu alal suñu ñun suñu ko jëndee mm-hmm. ñaareel bi mooy li ñuy yàq ñun ñoo koy jëfandikoo ñun ñi nga xamante ni nous sommes des citoyens sénégalais donc loolu mooy moom lay woowee yàq sa yàq sa bopp donc encore une fois j'en appelle à la responsabilité à tout un mm-hmm. chacun que ñu bàyyi suñu xel ci loolu mm-hmm. et comme ni ñu koy waxee le plus souvent euh, li nga xamante moom la ñuy def euh, nekkul loo xamante ne peut-être mën na nekk exemple pour ëllëg te li ñuy yàq ëllëg moom lañ koy soxla. te mhm. liñ ko soxlaa ci jàpp ñu dugal ko ci kaso. suba ñu def conférence de euh, mhm. balaa ñuy jeexal foofu Mansour bëggoon naa itam ñu wax ci ci Ousmane Sonko démb bi verdict bi wàccee ba noppi gis nañ également euh, soutien bi nga xam ni ñenn ci leader yi ànd ak moom euh, def nañu ko muy ay poste yu bëree bëri ci réseau yi est-ce que loolu mën nañ jàpp ne bu sincère la. non c'est mhm. comme nañu ànd. te li leen boole li leen boole ñoom tasagul euh, ñu séddoo ak moom li dal ci koom c'est c'est très normal parce que bul fàtte ni euh, sonk ak Barth am ñu waroo ci ay kàddu mais coalition bi tasagul xam nga coalition bi tasagul donc mën nañ ko régler ci seen biir parce que boo seetee li koy firndeel mooy euh, bi Habib Sy ak xalifa Sall nuyoo Macky Sall. ca jam ñaajo ci ngoon gi wala ci suba ga bi ñu leen commencé am sikki sàkka la waaye Yewwi Askan Wi génne benn communiqué nii ñi amoon photo te mën a photo te am sañ-sañ photo kese mooy fotokat yi nekk palais de la république. donc waaw architecte donc ñoom dong ñoo mën a photo lu ñu jublu ci photo xalifa Sall muy accolatante ak ak Macky Sall pour tel ko génne li ñu ci jublu mooy jaxase. waaye yi Askan Wi ab communiquer la ñu génne bu noppi signé ko yi Askan Wi pour leeral Sénégalais yi ni leen ni ñu meloon ba jaay leen ko noonu la ñu mel ba léegi. donc jaadu na bu ñu condamné Ousmane Sonko. Euh, leader yëpp génne ay poste waaye comme bu ñu comme bu ñu bu ñu bu amee oto bu mbëkk kenn France ni suñu njiit yoo defee poste. métit lu ko noonu itam la ñu amee sañ-sañ def poste. Mm-hmm. Facebook moom est là ak ak moom ak Instagram moom est pour tout le monde. waaw ku nekk am nga ci sañ-sañu bokk ak nit ki loo xam dal dal na ko et puis mm-hmm. xam nga dafa am wax naa ko sànq ci yàlla dafa am doxalinu politique boo xam ni ku nangu ba ñu yóbbaale la ci sa affaire la mooy comme li yàq làmb ji Ahmed Aïdara daf ko doon wax ni léegi kenn ñimeetu la commenter làmb ndax supporters yi bu Balla Gaye daanee mutloo boo xëyee boo nee mutloo ginnaawam tax na suuf ñu yendoo laa saaga loolu la ñu indi ci géopolitique bi fi mu nekk nii a chaque fois nga joxe sa xalaat ci Ousmane Sonko wala Déthié Fall wala keneen dañu lay considérer comme benn ennemi wala saaga la wala yooyu nag yow mi ciy bàyyi xel yaw mi ciy bàyyi xel man boom waxee waxee ma naan la yow yow yaa ma yab mais sa papa yabu ma sa papa mooy leader mooy sa leader bi ngay topp ba tax nga may saaga.